Idrissa Ba maa ngi lay nuyu. maa nga nekk euh, économiste chercheur consultant expert de la mondialisation et du commerce international déjà ma lay laaj naka nga apprécier prestation bu député Guy Marius Sagna parlement bu CEDEAO. Euh, waaw Moi, je suis très fier de lui. Et tout Sénégalais ou tout Africain de la sous doit être fier de lui. Parce qu'il défend réellement ce qu'il doit défendre, c'est-à-dire la souveraineté de nos pays, le respect des lois et des règlements qui réunissent euh, tous ces pays au, niveau de la CDAO. Parce que la CDAO est une structure indépendante qui ne doit souffrir d'aucune pression extérieure qui dépendent d'aucune puissance. C'est des décisions politiques macro-commerciales euh, euh, qu'elle doit prendre, mais avec toute une souveraineté. Elle n'a pas besoin de subir l'influence de Macron, de la France ou bien d'Alassane Ouattara, qui, nous savons tous que euh, il n'est pas, africain, ce type-là. Alassane il n'est pas africain, nous le savons tous. c'est Dieu qui l'éprouve euh, dans sa situation actuelle, de ne pas croire lui en tant qu'Africain. Euh, il peut croire aux États-Unis, il peut croire aux Américains, il peut croire aux Français, tout ce qu'il voudra. Mais l'essentiel est qu'il faut la paix à cette île Voilà. Donc, Dilma Dissagna, elle mm. a été courageuse et nous devons tous l'applaudir et l'encourager. Moi, en tout cas, je l'applaudis et je l'encourage. est-ce que aussi ni mu doon waxee lu lu normal la parce que gis nañ euh, mu attaqué wala dénoncer situation bi nga xam ne moo am si yenn réew yu réewu Afrique yi est-ce que am na droit aussi euh, di dugg si yenn yi. mais Samy. mais dans le fond. mais Guy Marius Sagna kenn. il n'a fait que dénoncer. il ne fait que dénoncer des partis qui sont en dehors de toute réglementation. c'est pas. euh, à une régulation collectivement définie au niveau de la CDAO. Ils le dénoncent. Mais une dénonciation, ce pas insulter. Au contraire, quand on est féru d'une vérité et, qu'on s'accroche à cette dernière, mais euh, on n'a pas peur de dire ce que l'on doit dire. Mm. n'a oui. personne, il n'a manqué de respect à personne. Il ne fait que dire la vérité en disant que le chat, il est noir, Euh, ah, en wolof en wolof Idrissa en wolof voilà moom la ñuy wax dafay dénoncer loo xam ne lii ñu ngi koy def ci waruñu ko def donc il a moom mu jël jël fitam bon léegi lii li ñuy def ci jaaduwul waruñu ko def parce que yoon may leen ko may leen ko parce que bu demee ba naan moom liñ koy fay sax est-ce que mérité lañ ko ñoom mais kooku wax dëgg yàlla boo déglu li mu wax moom il défend l'intérêt de la CEDEAO et des Africains en tant que panafricaniste. aussi euh, ñu laal euh, utilité wu CEDEAO est-ce que CEDEAO amati na njëriñ bu fekkente ni euh, crédibilité am si boppam ça pose problème. waaw CEDEAO bañ koy sos te njëlbeen ga lu solo la ci Afrique ci sous-région parce que dañ ko defoon maanaam pour wàññi influence bi nga xam ne bi Afrique ñu koy subi ci commerce international. temps boobu amuloon OMC mais France moo xala moo xelaloon pays africain ne leen def leen benn structure boo xam ne dina protéger seen commerce dina protéger seen économie ñu taxawal donc CEDEAO moo war a liggéey dans un sens transversal transversal mooy maanaam euh, boo jëlee bon axe nag dama xam nu ñu koy waxee ci wolof euh, axe vertical ak axe horizontal. bu mm-hmm. jox la transversalité. ci nga xam ne donc euh, commerce boobu ñuy def dañ ci ànd ñun ñëpp di défendre cette position au niveau international euh, di protéger encore seen économie parce que économie dañ koy protéger pourquoi parce que boo amee ay industrie yoo xam ne yi ñu ngi liggéey ci euh, ay industrie de substitution aux importations buñ ko protéger wul yooyu nga xam ne dañuy jóge bitim réew dafay indi tolof tolof ci entreprise yi nekk ci Afrique te loolu tam baaxul donc il faut industrie yooyu ñu protéger leen par une discrimination euh, économique commerciale mooy def ay règles de production te day maanaam produit ñu ngi koy defar fii sur région bi bon nag du ñu mayee ci beneen produit bi jóge feneen di dugg ci la SEC bu ñu xoolee tam ne que mm-hmm. euh, amaguñu doole pour defar loolu nga xam ne produit bi soxla nañ ko ñu ne bon nañ wàññi quantité bi buñ doon dugal fukki tonnes nañ dugal ñaari tonnes waaw mooy euh, une production quantitative euh, de partielle hmm. contingentement voilà donc loolu lool baax la euh, te nañ ko jëkkee xalaatee ci CEDEAO bañ ko créer lool la doxe te loolu buñ ko sàmmoon baax na mais xam nañ que ñun xam nañ ne que France wala Union européenne wala Occident du ñu nangu africain yi di am seen indépendance économique wala commerciale du ñu nangu ñu am souveraineté boobu parce que dañu bëgg toujours nasaxal ñu ñuy dépendre ci ñoom lu ñu soxla fii ci suñu réew wala ci suñu région ñu dem jéggane ko ci ñoom moo tax lu ñu taxaw rek dañ koy jéem a saboté yàqu sabotage la nii CEDEAO mel nii bu dee ci kenn nax lu ko France génnuti bon malheureusement toujours yooyu ñoom mu koy def dafa am ay nit yu ñu taamu nga xam ne ay nit yu ñuul la ñu doon mais lépp ñu dig ñu ñuul ay tubaab yu gëm moom la ñu liggéeyal bu ñu ragal nag di wax Alexandre Ouattara moom ñëpp xam nañ que moom loolam mooy ba Afrique bëgg a def planification bu yàqu déglu kenn ku dul Macron mooy nijaayam mooy maamam mooy kilifaam moom lay déglu. ku dul Macron di États-Unis Fonds monétaire international Banque mondiale ñooñu lay déglu lii nag il faut dakk parce que mënul wëñ Afrique dafa war a développé wu suñu yi di dem ci géej ñu sàmm leen ñu soxla fii dañu dem uti ko feneen ñu dafa ay industrie ñu am ay emploi yu jéy lii mooy lii mooy wax ci euh, Idrissa Ba njiitu réew Sénégal euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye Euh, ñu teg ko euh, si ndoddam maanaam mu war a réconcilier euh, réewu CEDEAO ak AES mooy alliance des états du Sahel di Burkina Niger et autres est-ce que moom mën na réussir li nga xamante ni moom mooy mission boobu fexewaat ba réew yooyu delluwaat ci biir CEDEAO mel nañu meloon waaw li ci jaaxal mooy que ñëpp xam nañu que Macron ak Alassane Ouattara dañu taxaw carrément pour saboter CEDEAO bëgguñu mu dox parce que gàllankoor yi yëpp boo ko xoolee loolu du ñu du ñu du ñu nangu CEDEAO réussir ci politique commerciale bi ñu bëgg instaurer ak économie bi ñu ci bëgg teg donc euh, loolu mooy euh, waral que Diomaye xoolaat bu baax affaire bi. parce que pour man intérêt mooy li ko war a dooleel dans sa politique nationale comme internationale panafricaniste mooy mu rejoindre alliance bu leen rejoindre mu dem dooleel leen mm-hmm. loolu foog naa nekk dana ko dimbali sur le plan politique et au de la région parce que nii mu mel nii actuellement nii tant que Macron ak Alassane Ouattara ñu ngi décider pour saboter CEDEAO hmm. Diomaye góoma na ko bu réussir góoma ko te dañ koy décid dañ koy euh, dañ koy décrédibiliser genre de sabotage en quelque sorte hmm. te warul am sabotage waruñu wàññi influence am bi parce que dafa am lu moo représenté sur le plan continental et sur le plan régional sous-régional Euh, aussi euh, mu dal di tànn ki nga xam ne mooy professeur bàcc li def ko envoyé spécial euh, du président euh, surtout ci mission bi nga xam ni am na ko euh, ngir boole réewu CEDEAO yi ak AES naka nga gisee tab gi ñu tabb bàcc li comme envoyé spécial du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. def euh, na wane na du benn du taxawaayam ci continent bi ak ci plan politique si au niveau du Sénégal ah yaakaar bi am ci moom ba nommé ko mooy que mu fexe ba waa confédération bi dellu gannaaw mais li ma ci jaaxal mooy ñoonu li dellu gannaaw ba àddina tukki jël nañ décision li ñu war a def sur le plan politique def nañ ko te dootuñu wane ginnaaw war nañ ne ko France dootu leen jiite wala nañ ko dootuñu diglu Macron ni qui que ce soit donner seen décision pour affirmer leur souveraineté et le nationalisme te wax fa dëgg yàlla pays africain yëpp loolu ñu war a jël comme exemple dox ci ci sama xalaat man personnellement moo tax bu doon sama sago Diomaye bu ko wóoroon dañ ko ci dugal pour bàtteel ko jéem a wàññi maanaam dara jaam parce que xam na ni lii Diomaye mënu ci dara Bathily mënu ci dara moom nag léegi moo war a jël opportunité moo ne moo léegi moom day bokk ci alliance bi Sénégal day ci alliance bi bu ko defee ah mbir yi dañoo changé dañoo bu baax a baax a baax a baax parce que nag xamuñu lan mooy dayu Macron nekk fële mhm. mais jàpp africain yi comme kenn xamul lan la di leen këli këlee di leen mel ni mooy seen yàlla wala si pour mais kooku dafa war a dakk dafa war a dakk na ñoom fa la fayda wan ko ne ko ji France ngi jiite jekki dootoo ñu jiite jeex na France dundul Sénégal yàlla mooy dundal Sénégal ak su région bi yàlla moo ñu dundal du banque mondiale du fonds monétaire du Macron du keneen nañ yow Euh, ñu jógee côté boobu dem ca États-Unis d'Amérique wax si situation bi am ci diggante ñaari candidat yi foofule di Donald Trump ak Kamala Harris aussi gis nañ ni ki lee di Joe Biden dafa reculer bàyyi Kamala Harris daal di wëyal campagne bi ngir battre ki nga xamante ni mooy Trump naka nga gisee situation ba ca Amérique. waaw xam nga boo xoolee situation bi actuellement Joe Biden mooy président en exercice mais bu ñu waxante dëgg nag wax fa dégg yàlla mag la te agent mayatu ko parce que président exercice président dafa dafa nekk lu diis mag surtout moom góo mën ak mu mën a ci ko assurer comme il faut bon nag je crois que c'est intelligent au lieu mu yàqal démocratie mu ne bon léegi ci njëlbeen nga bi muy teel moom mënutul dem nañu seet keneen ku ko mën a remplacer mu fexe ba gagné loolu moo tax ñu nommé mu nommé Kamala Harris waaw mhm. mais euh, Amérique nag dañoo am benn statut particulier boo xam ne bi pour nga jàngal leen dafa xaw a complexe parce que état bu ay état yu mag la te seen politique kenn mënu ko tënk d'une manière claire parce qu'il y toujours toujours toujours toujours ay ay ay ay changement de paramètres ay changement de variable par-ci par-là dafa xaw a doy mais li ma ci jàpp daal mooy que euh, entre démocrate ak républicain yi ñan la ñu war a choisir mu jiite parce que ku ci nekk ci ñoom Alex président Obama moom bi mu nekkee président dafa wanoon fermeté Euh, waa Israël Netanyahu wan ko ne ko man du ma topp ci say wax yooyu pour ci ay guerre du ma ko def te fexeel ba bàyyi palestinien ba moom dafa am fula fayda wan wan Netanyahu ne ko man doo doo sama kilifa du ñu déglu mais Trump bi mu da doon alterner du jeu du chat la souris mais heureusement que Nord-Corée le président nord-coréen wan ko ne ko ñun en tout cas ñu ngi taxaw. lu ngeen mënti def pare nañu pour xamal rek nekk bu ñu moytuwul quel que soit le président américain futur li ñuy ci war a ragal mooy ñu indi une troisième guerre mondiale parce que parce que waa Ukraine bi prétexte lañ ko jël prétexte lañu jël dem ba ko muy dem di attaquer Poutine Poutine Russie moo leen jaaxal fi mu nekk parce que tant que Russie mi ni fi Amérique du mën a def son hégémonie et son impérialisme wane na moom muy jiite àddina lu ko neex def ci àddina tant que Poutine ak su ñoom dañ ko def Chine bokk na ci léegi Corée du Nord bokk na ci Iran bokk na ci ak ñeneen ak ñeneen bon nag léegi je crois que li gën pour États-Unis mooy ñu ñaan ko yàlla def ñu leen yiw te ñu dal respecté nit ñi respecté planète bi parce que doole bi ñuy bëgg a jaay ni ñi amuñu ko États-Unis àddina si yëpp bu ñu jógee xajuñu ci États-Unis ci ñoom bon nag nu delloo si seen xel te ñu toog tranquillement respecté peuple yi respecté nit ñi bàyyi guerre yi ñuy taal gauche droite surtout israël bañ ko wax ne ko ñu bàyyi palestinien yi parce que iblis bi gën a mag ci àddina tey mooy Netanyahu ay ah, iblis lañu c'est des satanistes bëgguñu jàmm jeex rek ak xeex ak not ay nit jàpp ci palestinien di rey mais loolu il faut mu takk Euh, dernière question euh, Idrissa Ba c'est par rapport ak exploitation pétrole bi ak gazu Sénégal bi naka la mën a suqalee koom bi. waaw ñu mu koy suqalee garantir ko dafa war a lalu ci boo xam ne bi day assuré loolu ñuy wax un patriotisme économique maanaam économie bu Sénégal. day tegu ci li ñuy wax patriotisme mooy maanaam sénégalais di fonk réewam fonk askanam fonk ay lu mu am lu ko yàlla baaxee mu fonk ko di ko sàmm ni mu waree loolu nag dafa am casting boo xam ne bii pour ñu garantir ko d'après la constitution le Sénégal est un pays souverain indépendant d'une manière inaliénable et imprescriptible mooy que na mën une politique patriotique basée sur des castings yoo xam ne sa assure euh, la garantie euh, ci lépp lu ñu am ci alal politique boobu daf koy garantir pour Sénégalais mooy lan muy muy bu nekkee gaz bu nekkee pétrole wala or zircon loo mënti xalaat ñu ne am na ko nañu créé ay société nationale d'exploitation société nationale d'exploitation ñu fexe ba am cinquante et pour cent des actions cinquante et un boo ko dindi ci cent lan mooy def neuf nga jël vingt neuf pour cent yi ne ana Sénégal yi am xaalis ana ñu nga identifier leen ne na leen ñëw jël vingt neuf pour cent des archives bu ñu ko defee lépp lu ñu mën a exploité ci gaz pétrole yaa xam day toog ci réew mi du dem fenn kenn du ko kenn duñu ko xañ kenn duñu ëpp doole naan danga ko yóbbu vingt pour cent yi def nag borom xam-xam bu bëgg ñëw bokk ne boo léegi dem leen di qui exploitaient hors bi 20% la CAF mais déjà 20% sax bari na 20% bari na trop pour société étrangère ñoom ñu koy jox la pos ku am xel ci ñoom da ngay d'accord man daan def ci loolu la ñu war a sukkandiku nag ANACIM nag fu lu ñu mat sëkk. Mhm. duñ ci neexal kenn. voilà merci duñ ci neexal kenn ku bëgg a ñëw exploité ak ñun nga ñëw nga d'accord ci condition yi nga boo ko mënul merci beaucoup dañ a ànd ak xalaat mooy ngi lay remercier bu baax a baax Idrissa Ba. Mhm. Euh, ñuy fàttali ni économiste nga chercheur consultant expert de la mondialisation et du commerce international.